ab agent RTS warut a mer ndax bu feebaree ñu ngi lay faj ñu ngi lay jox ci oto yu baax yi seen soxna yi bu ñu feebaree ñu ngi leen faj kon yéen nee na waru leen mer naka nga jàngatee loolu. waaw euh, nga baal ma euh, Xaadim Sàmb suma papa la euh, bi mu ñëwee RTS dafa am lu bari lu mu fa indi mooy loo ko bëgg ak loo ko bañ nangu nga ne émission làmb bi mu doon def moom ñëpp koy seetaan te yàlla may ko muy borom xam-xam am expérience ci média mais Xaadim Samb moomu tey fii may waxee yow tey maanaam tey boo ko laajoon waxi RTS lan la la cay wax dama laaj Xaadim Samb RTS te liggéey na ba retraité kuy toroxal retraité yi retraité yi am na ñoo xam ne fii may waxee yow bu ñu demee IPRES ñu ne leen cotiser luñu leen 2 ans 3 ans 4 ans xam ne dañuy retraité pour ñu jot seen xaalis jafe-jafe la Xaadim Samb retraité na. mais du Xaadim Samb rek yéen barki dem bu dégg leen anniversaire Racine Talla ci télé bi. dégg nañ ko ñu ko ñun ñuy liggéey suñ papa yi liggéey ak suñ rakk yi suñ nangam ñi liggéey ba retraité moom moo toog réunion ne bu fi kenn teg ay ku retraité c'est pas de l'information waaye anniversaire information la. nañ waxante dëgg ah, dëgg moom nañ ko xoolal dama lay laaj anniversaire Racine Talla lan la ci sénégalais yi gagné. kon maanaam yéen mënta jënd gâteau yamale ko kër leen ko yéen yéen mais nuñ ko mais dama ne yéen yéen ko gën a ñaawlu Racine Talla nan lay mën a jëlee lu toll ne anniversaire am waaw ku manta may nit ku traité nga xam ne benn extrait la cay am ak njabootam di ko ko xoolee bu ñu koy def vidéo wala ñu def ko CD sax nga ne non non c'est pas de l'information nga fekk ko fa muy aada nga ñëw dindi ko ba mu set c'est que man euh, Racine Talla sama sama kilifa la mais dafa am image boo xamee ne euh, dama ko mës a gis mbay luum dafa génn àdduna ñu tëral ko yàlla na ko yàlla xare àjjana suñu papa Ahmad Bachir Kounta taxaw tiim mbay lu daal di ne Racine Talla damaa bëgg nga juboo ak sa njaboot gii ndax nit nag boo demee ba toll ci ñu tiim néew di ñaan nga juboo ak sa njaboot war ngaa xoolaat sa bopp ñaareel ba nag li nga xam ne moom laay wax mooy RTS moom retraité yi demal nga laaj leen ñoo nga fa am na ñoo xam ne dem leen retraite waaye daal liñ mën mooy tàgge nit ci tele bi li ñu mën mooy nit ku retraité ñu tàggale ci télé bi te am na ñoo xam ne ñoo ngi leen tàggee ci télé bi ñëwaat RTS wax ak RTS delluwaat tëdd seen bàmmeel yi dañ ko def ndax sagaluñ leen dañ leen a toroxal dañu leen a def loo xamee ne kenn mënu koo nettali te bët bu rusul toj.